Euh, boo seetloo depuis mhm. euh, liñ li waxoon mooy mooy confirmé wu à chaque fois. Mhm. que euh, Idy Seck peut mu ngi mu ngi alerte Macky ci terme protocole bi. Mhm. parce que munu waxtaan nañ lu yàgg ñoom ñaar avant ñuy ànd. te ci biir waxtaan woowu. effectivement succession Macky Sall mënu si ñàkk parce que Macky Sall mënul toog ak ci pouvoir bi ad vitam aeternam d'autant mm-hmm. plus que suñuy institution mm-hmm. dafa am ay règles mm-hmm. donc waxtaan wi mënul génn également la fait que se Seck en tant que politique génn deuxième à la présidentielle de facto moom moo war a sës pour succéder à Macky de facto débat bi mënul génn foofu liñ doon wax waxoon nañ ko fii dañ ko dafa euh, les faits ak déclaration yu mujj dafa confirmer en fait la ñu waxoon léegi nag y a un xam nga doute bi mooy lan hmm. doute légitime mooy Idriss Idriss Seck ak Sénégalais yi bari dañ commencé douter si Macky Sall ni kii sax est-ce que dina def hmm. doute boobu hmm. moo jàpp yenn Sénégal yi moo jàpp d'ailleurs monsieur le ministre war na ko sax moo jàpp également Idi Seck naa waaw kii moom moo ko seetaanee baa du continuer te përal mhm. def euh, euh, <laughs> kooku daan bay Demba Waar euh, Ndiaye. ca waar wa bay ba fa dugg géej. <laughs> bay Macky daa bëgg a bay ba fa dugg géej géej nag kenn du ko bay. <laughs> wallaay dëgg la géej kenn du fa bay. kon dafa war a nangu li Abdou Karim waxoon samedi bi. Ah. nee mu taxawal mouvement nangu. nangu waaw nangu dogalu yàlla. léegi léegi nag problème bi mooy. Mhm. Euh, dafa comportement bi dafa ub bopp ñi mu àndal. Mm-hmm. d'abord waa APR parce que ñoom tamit xamuñu <laughs> vraiment fu ñuy taxawee. Eh, eh, mm-hmm. ub bopp ñi mu àndal ci allié yi AFP gis nga rëmu yi. Mm-hmm. PS gis nga wilaan ainsi de suite waa réew mi ub bopp waa opposition. <laughs> ub bopp population yi. te te nag malheureusement pour ñun ñëpp nag. lenn nag ci institution du Sénégal ak texte Sénégal obligé wu ko nag moo wax. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. candidat la wala kon du candidat il n'est pas obligé. ne serait que peut-être moralement. Mm-hmm. peut-être moralement pour euh, apaiser tranquilliser parce que le président Mohamed Buhari def na ko ah, ba. Nigéria macha allah élection yi jaar na si yoon. Mm-hmm. donc am na contestation xam nga Afrique moom. tout am contestation. Mm-hmm. et et yeneen réew également comme Niger Issoufou et cetera. Mm-hmm. non en Mauritanie quelle que soit difficulté expérience bi. am na fa donc au Sénégal je pense que ñu ngi xaar autour boobu. ci le président de la République maintenant euh, Idrissa Seck évidemment en tant que cheval. en tant que cheval. dafa jël risque te risque boobu. daf ko indil góom ci tànk mhm. ci deuxième position la woon bu ta posture boobu c'est vrai que réew bi mu ngi woon ci danger mhm. te je pense que monsieur le wax na ko sànq mais posture boobu na bu ko bu ko ko nawoon téye ci la doon ëpp chance que maintenant parce que maintenant dafa wàññi bu baax ay chance am pour propulser wu mhm. chance am pour communiquer aux Sénégalais chance am pour convaincre beaucoup de Sénégalais am na nag capacité génie communicationnelle. oui dañ ko koy nangu. il faut mu rebondir par rapport au contexte. Mm-hmm. mais damay fàttali ñëpp nag ni génnagul quand même ci coalition bi. Mm-hmm. Mm-hmm. génnagul ci gouvernement bi te il est comptable peut-être de ce qui est en mm. de de se faire d'accord dans une certaine mesure. d'accord du coup c'est extrêmement compliqué comme posture moom. d'accord moom posture am compliqué la. alors monsieur le ministre